jàng fu neex na. léegi jàng xam nga lu tax. waaw bis bi dafa ndax boo gisee tey bi bisu dimanche suba di altine defe naa ni léegi fajar bi xaar ngay waxtaane alaaj Cerno Moulay Sow tubaarkàlla te yonent bi ngeen dégg tubaarkàlla sëriñ bi di ko misaal ci xasida googu ñuy wax gis bul xuloo i wax ne gan ak yonent bi ci fajar buy xaar la diggante altine ak dimanche diggante dimanche ak altine moo tax ma ne la nga dugg si foofu oustaz Babacar ndax day loo xamante ne ab takk la ci diggante ak ajaratu Mariama Kamara tubaarkàlla mi ko meññ ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak fii mu ajalee suñu baay euh, Mamadou Aliou Sow tubaarkàlla ak fii waxtu yu toll tëb tëb moo tax ma dugg si foofu. kon nag naa loolu nag léegi léegi nag xam nga dañuy def. waaw dañuy jàll. ci ci li ci topp sunu yaay ajaratu Mariama Kamara. ndeysaan ku ne xam na ne aj metti na. Oh. aj metti na de. wallaay kon ku ne xam na ne mi ngi jànkuwanteeg coono yoo coono yoo xam ne kenn mënu koo misaal. dëgg la mi ngi jànkuwanteeg coono yi kenn mënu ko misaal. dëgg la aj na xam naa ni mettee la neex na. dëgg la ndax ajaratu xadi bu nii. ndeysaan dellu rek la bëgg. daa ko bëgg a yoxu si ne dañ ko ci. mais xam naa ne mu mettee la neexee. daa bëgg a dem de. Eh, tabaar léegi nag Maxtaar. waaw. damaa bëgg ñu jàll ci ci yi nga xam ne moo ci des. dëgg bu ko defee sunu wëyyu ajaratu Mariama Kamara. ndeysaan ah tabaarakallaahu ñu mën koo ah, yeewi nag incha allahu ak sëriñ bi. tabaarakallaahu ci digalu sëriñ bi. ndax nag sëriñ bi moom xam naa ne. dëgg ah, na sëriñ bi du bëgg kon nag incha allah sëriñ bi tey waxuma la waxuma la prise bi waaye kano bi lay taal kano kano. bu ko defee ku fi jógee rek. sa sa aajo faju barakallahu kon bu nga defee ñu soog a jàll waaw xanaa taalibe yi rek tubaarkàlla comme ku mel ne Mouhamadou Youssouf Moulé di di taalibe sëriñ bi ku ne gis na fi mu jaar ak sëriñ ba yegg si fi tey kon donc tey c'est très mu bokk ci mule mule yi nga xam ne mooy première mule mule bi nga xamante ne tubaarkàlla defe naa ne mbule mbule la jël comme moom comme soxna kon nga xam ne sëriñ bi yoonam bi yoon wu tegu la waaye yoon wu tax ci siraatul mustaqim la kii nag da ciy firnde tubaarkàlla di ci sëriñ bi di international ma jox ko mu nuyoo sant sëriñam ndax saa su ne mu joxe ay kàddu yu cantam di feeñal mbégteem ak cofeelam ci sëriñ bi ak bëgg gi ko bëgg ak fi ko sëriñ bi taxawoo ba mu yegg si fii ndax defe naa ni ca Maroc lañ ko woone ko kaay gas jumaa dañ lay fay mu ne déedéet man sama sëriñ sant ma may gas duma di fay daal liggéeyal naar yi ba ñu kontaan gërëm ko te boobu kenn filmé wu ko kenn wane wu ko ba tey mu ñëw di ko wax kon tàccul leen mu Mouhamadou Youssouf mu ne bëgg ak bëgg diine ak Rasulullahi jox ko kàddu gi rek mu feeñal li nga xamante ne mooy ay tam ci kanamu sëriñam tubaarkàlla da samu nan mai na duniya ya yi gwanon kuma ya kuma ya gwanon kuma Allah kuma domin yi ta hau su gwanon kuma dañoo xam ak dañoo xamul ñëpp ñëpp yàlla na yàlla ko si xam. di nuyu prince un ak prince deux la reine suñu yàlla bëri yàlla. sama yaay ji maa lay nuyu rek ak sa wàccuwaay ak sa koro yëpp. di nuyu tamit suñu mbokk taalibe di lim lay yéen ñu fi nekk ak ñoom macha allah di leen ko teg di nuyu tamit ñu lim lay yéen national international ak Sénégal képp koo xam ne sopp seen kër moom lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la jox sa sama sëriñ nag mënuñu koo fay ñun mu nekk rek mënuñu koo fay man ñu ko jox turam tuddee ma turam mënuma koo fay mu mënoon na xool ni taalibe la rek ma seetaan ko waaye ma génne ma sànni mu bëgg ma sopp mu def li gën a rafet dëggal ma ci diine loolu yëg-yëg boobu mën ma ko koo fay rek moo ko mën a fay macha allah nekk naa man. di liggéey ak naar yi metti na lool mu taxawu ma suba ngoon bu dégg bëccëg moo naar yi moom lu fa nekk kenn mën la wax léegi mais yàlla ak rasulullah salaa salaam ak jëmmoom ak ñett borom yi ñuy ñaan saa su nekk sàmm nañ bu baax a baax a liggéey nañ ko nag macha allah di gën a doy waar mooy liggéey jumaa liggéey jumaa naar yi naar bu ñëw day laaj xaas bu bari ndax sunu liggéey yàlla ak yonent bi ndax bi na ko yónnee sala salaam naa ci ñaq naa ci tooru naa ci gaañu naa ci mais mbégte la ci man bu ma samay góob am lay sant bu ndax yaa ko waral yal na la yàlla xëy nuyu di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal jàpp ba pare nag nga na xam ni rasulullah sallallahu ko lépp yàlla ci taamu bis benn bés boobu Youssou Fla Mouhamed Youssou mu ne yow laa ci may soxla loolu yàlla rek ma la ko mën a fay yàlla na la ko yàlla fay nga tànnal ma soxna si gën ci soxna si di daaru laay nga tànnal daaru laay ba mu daj nga jox ma ko loolu tamit mbégte bëri la yàlla na la yàlla fay yàlla na la yàlla fay sama xol bi tooy na lool mais nag yàlla rek moo la mën a fay macha allah macha allah. jërëjëf. waaw ah, moom la ñuy suuf bu leen may leen ko loxo bu baax a baax a baax. ndax defe naa ne feeñal na asaka yi yéeneen waaye tubaarkàlla ci tënk rek ndax xam naa ne fi mu ñu déglu daanaka te toogaay kon bu ko defee ñu bokk déglu kon jëwriñ yi jëwriñ yi ah, joxal mi sax waaw jëwriñ yi dafa am lu ñu war a def ñu waaw bu nu bu addi yi bu nu paree addi yi dina ah, way léegi léegi xaaral ñu addi yi bu ko léegi bu nu paree addi yi rek insha allah daal Yusuf bismillah waa international ñoo joxoon sëñ bi baal ma teel addiya bi nag moom barewul waaye sunu sëriñ dañuy sàkku ñaan ci moom rek ñun ñëpp ñuy jéem ñu mu lay ñuy jéem ndax barewul macha ñu jël ñetti million ak eh, ñeent fukki junni macha allah ñu jox ko ko waaw ñu jox ko ko addiya macha ñu wax ne sunu yaay. macha allah moom la ñuy jox. moom la ñuy jox cent yi. ñu jël suñu mbokk taalibe jinne mu lay tamit ñu jox leen cent mille. macha allah addiye baa ngi nii sama sëriñ yal na yàlla fay sa xol. macha allah waaw bii mooy sunu basu yaay. ajaratu Mariama Kamara ah. nee na nga jox ko directement. waa international ñoo la ko jox. waa international ñoo la ko jox macha allah nag sunu sëriñ bi mooy addiye jinne mu lay. cent mille na yàlla fay. macha allah. macha allah. waaw. loolu mooy addiye. waa international. jox sëriñ bi 3 millions jox suñu yaay ajaratu Mariama Camara 100000 francs waaye joxe addiye jinne yi itam 100000 muy millions mi ngi nii loolu mooy addiye waa international nga xam ni wax dëgg yàlla ah, sëriñ bi waxtu wu ne mi ngi leen di ñaanal waaye waxtu wu ne mi ngi jàkkaarloog ñoom mi ngi def ci ñoom ndax bi ñu àndee ak sëriñ bi bu avancement amul woon du ñu mën a joxe addiye ndax kenn ku ne bi ngay ànd ak sëñ bi mënoo joxe million cent mille francs yu bokk buum mënoo koo am waaye ba nga àndeek sëñ bi wax ma la cent mille francs yu bokk buum waaye ay millions yu bokk buum mën nga koo am sànq nag dama wax ni sëriñ bi ku jóge ci international ñëw fi wala nga jóge foo jóge ñëw fi loo mën a indi ci addiyee dina la ganale di la ganale ba nga xam ni addiyee ja nga ko jox fukkam la boole ganalee la ko yow ndax xam gu ma xam teraanga macha allah kon nag yàlla na yàlla fay leen nitu yàlla noonu la ñuy ànd ak moom nitu yàlla dëggal ak dëggu ak jëf rek lañuy ñuy nitu yàlla dëggu dëggal ak jëf noonu rek lañuy ñuy nitu yàlla macha allah waa international barakallahu seen hadiya mi ngi noonu waaw

di ko ñaanal njabootam yëpp di ziar suñu yaay booy Adja Mariama Kamara di ko ñaanal moom tam gudd fan ak wér yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi lool te wér fekkee lépp ñu bañ a séddale dara ci ginnaawam ah ñuy ziar nag madame Sow laa di ko ñaanal gudd fan ak wér yàlla saxal ko ci sëyam bi moo xam lim ci bëgg yal na ko yàlla defal ci barke yonent bu tedd bi di ñaanal nag prince 1 muy Rahman ak Rahim prince 2 di leen ñaanal gudd fan ak wér ba ñu relever seen papa yal na yéex yàlla mën na ko am na ko yomb na ko yal na ko yàlla def ci barke yonent bu tedd bi ñun nag Moulé Moulé yi ñu association Daaru Laay nationale ñu ngi nuyu waa association Daaru Laay internationale di nuyu waa association Gandhi di nuyu bépp mule mule koo xam ne sax bokkul ci association ndax bare na ñoo xam ne ay mule mule lañu mais bokkuñu ci association yi di indi aadiyee di ko jox sëriñ bi macha allah ñun nag waa association national ñoo indi woon aadiya pour jox ko sëriñ bi waaw ñu indi nag 2 millions pour jox ko sëriñ bi. léegi 100000 francs bi Adja Mariama Kamara lañ ko jox. 100000 francs bi Adja Mariama Kamara Darou Laye national. 100000 francs yi jinne yi lañ ko jox. 100000 francs yi. jinne mule mule yi lañ ko jox. jinne mule di ñaan yàlla rek nañu sëriñ bi yokk ñaan rek. ndax suñu dinañ toog ba jëmmi jamono. ñun ci suñu bopp ñoo koy yoroon léppam ah. lu mu xewlee dañ ko naan toogal croiser les bras barke yonent yàlla Muhammad mi ngi ci suñu xol mu ngi ci suñuy xel mu ngi ci suñuy yéene yal nañu yàlla bàyyeek moom waaw yal na yàlla yal nañu yàlla bàyyeek moom yàlla bu yàlla tas suñu yaakaar yàlla bu ñu dajeek xaaxaam yal nañu jégg xaaxaam yi ñëw ba ci moom ñu àndandoo li liggéey rek ba aljana jaak gi ne yal na yéex yàlla man na ko am na ko yomb na ko yal nañ ko yàlla defal ci barke yonent bu teer bi ci barke ñetti leeru Cerno Moule Sow loo rek lañ koy ñaanal léegi nag ma jox kàddu gi Xarjata Ba yow doo bàyyi loolu. Adja Khadiba. benn lañ benn lañ soo xëyee rek wax naa Adja allah waaw dëgg la. salaamaaleykum maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar bu baax a baax jiital ci nuyoo bi nag suñu xalifa suñu wasila suñu yaakaaru tey ak suñu yaakaaru ëllëg gannaaw yàlla ak yonante ba na mu lay Sow ñu koy nuyu bu baax di ko ziar bu baax a baax macha allah. waaw suñu teewaayu tey nag ndeysaan dafa nekk teewaay bu neex ndeysaan ndax dañuy teral suñu yaay soxna Mariama Kamara di ko ñaanal rek yàlla na kàlla gi ràpp ak jàmm salaam macha allah yàlla may ko gudd fan nag wér macha allah amin léegi nag euh, di wax ne suñu xalifa ñun mënuñu ko fay ñu ko jox rek xeeb nañ ko ndax defal nañu loo xam ne mënuñu ko fey ñun ñii ñëpp koo ci laajoon tey bu la waxee rek da ngay waar ndax daf ñu jàppale jàppale suñu njaboot macha allah. doon nag lii moom xeeb nañ ko trop muy waa national muy waa international ñun dañ ko xeeb. mais nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla gën nañu yokk ba ñu gën ko mën jox lu ëpp lii yéene nañ ko lu ëpp lii macha allah Seydi saw ndax yaa ñu ko jaral macha allah. di nuyu nag di ziar taal bi yëpp bàyyi ma kenn nuyu naa ñëpp ziar naa ñëpp macha allah di sant yàlla bu baax a baax ci bés bi bi ñu ko commencé si alxam si bisimilahi rahmaani rahim nar ko yeggalee ci alhamdulilahi rabbil alamin ñuy sant bu baax di gërëm jërë ngeen jëf merci beaucoup. Euh, yàlla yàlla fay leen yéen waa daarullahi national yéen itam wax yàlla ndax alaa Cerno mu ne moom fu mu toll ay mbiram ca kanam rek la jëm moom amatul ay tànki gannaaw ca kanam rek la jëm te képp ku ko gëm dëggu te dëggal incha allah ca kanam nga ca kanam nga jëm képp koo xam ne da ngaa sentir ni yow da ngaa say mbir dafa am dara lu ci taxaw xamal ni xoolaatal sa bopp xam ne am na loo réservé ci sa bopp waaye boo ko joxee sa lépp mu téyel la sa lépp te ku mu sa lépp sa lépp dox sëriñ bi lii soxna Mariama Cissé Moulé moom itam moo la ko jox muy hadiyaam defe naa moom international la. soxna Mariama Cissé mu moom ma ngi noonu. yaayam mu ngi jóge ay ay euro fii. kooku euro waaw kooku euro la. 50 euro la. bërki démb bërki démb la la xaalisu Angleterre bi nu mu tudd. ah man pound la defe naa ne. pound ah bërki bërki démb la pound ñëw man xaalis eh, yëpp. am na bi xaalisu Allemagne bi. waaw mooy pound.

muy addiyee waa national ak addiyee waa international macha allah muy loo xam ne dañ koo jël jébbal ko sëriñ bi xam naa nag kon ñun ñëpp dañuy àndandoo déglu sëriñ bi insha allahu taala ndax wax naa ko ni ko mm-hmm. euh, taalibe bu la jox hëddiya dafa rek delloo mbàtt ca ndaa la ndax kenn ku nekk bi ngay jëflanteeg moom mënalul boppam dara ay ay mbokkam mënalul ko dara ku ne bi ngay jëflante ak moom mënalul boppam dara ay mbokkam mënaluñ ko dara amul kenn ku ko mënal dara te wër naa wër a wër ba dajal soo ko ñëw ci yow c'est que li gën a yéeme ci yow mooy ñi mooy ñi wër ba dajal ñi wër ba dajal ñooy ñëw nga xam ne ñoom dañuy waaw waaw boo fëggee bu dëgg mu ne la bis wallaahi musul bu jël mën nga ko waaw waaw waaye wàcc ki nga xam ne maay mooy maam lu bur yaataa boo sa cuub océan atlantique tuna kàlla nga xam ne kenn bu ko doole alaaj cërno mu lay soo ko terrassé waaye defe naa ne am di Moustapha it kii di alaaj cërno mu lay soo moo ko terrassé waaye zaa tamit tubaar kàlla alaaj cërno lay soo ko terrassé premier ambassadeur keroog bi ko sëriñ bi daanalee tubaar kàlla dafa daal di tuur xéwal ndax kii mooy Thierno Moulay Sow xalifa général jinne yaa ngi nii surtout si njata kayita baa ngi nii moom Thierno surtout si njata kayita baa ngi nii moom Thierno kii mooy Thierno xalifa général jinne yaa ngi nii sëtu si njata kayit baa ngi nii moom cerno sëtu si njata kayit baa ngi nii moom cerno kii mooy cerno Moulay Sow xalifa général jinne yaa ngi nii sëtu si njatakay te baa ngi nii moom cerno sëtu si njatakay te baa ngi nii moom cerno adduna bi nu mu yaatoo adduna bi lu mu yaatoo adduna bi lu muy rëy rëy rëy lépp yow la yàlla dénk xalifa généralu jinne yi bi nu mu yaatoo mu ne la yàlla dénk xalifa généralu jinne yi bi nu muy rey rey yow la yàlla dénk xalifa général lu bi àdduna bi lu muy rey rey rey rey lépp la yàlla jël jox la sir lu àdduna bi nu mu yaatoo yow la yàlla dénk xalifa général lu yi te sunu boroom may na la sunu boroom dénk na la yàlla bu ñu yàlla taxaleeg jëmm ji muy alaaji cër na mu lii saw muy alaaji cër na mu lii saw yàlla bu ñu yàlla tàggaleeg yow ñun de xam nañ lu mu luy jariñ ñun de xam nañ lu ñu yàlla defal ñun de xam nañ ne buur bi jagal nañul yàlla yàlla fay yàlla yàlla aar yàlla yàlla sàmmamule parce que damaa woo sànq dama ab Ablaye jëlal micro moo tax ma insisté pour dugg gàcce woon ci man ma ma jëm tëdd ma da ma defal lu rëy macha allah sama naa ngi nii toog su ma daan ñëw fii damay tere muy mer may guddee fu ma nekk mu naan maan ay foo nekk ak foo nekk yow sa jëmm ji tey yaa tax tey yaa ko defal loo xam ne maanaam mbindeef defalu ko mu ngi nii toog mu ngi nii toog tey jii fii teg te su ma daan ñëw damay tere nga ubbi clinique fii. nga jekk jinne bu nga njëkk jàpp fii si clinique bi est-ce que comprendre nga la wax jinne bu mu njëkk jàpp si clinique bi mu nee naa ko yow fii sa kër la yaay dalal jaami parce que yow yaay jinne bu njëkk jàpp fii jinne bu njëkk jàpp si clinique bi kon boo ku fi ku fi ñëw ku ne yaa ko war a njiit te xam naa maa lay sant di la gërëm dénk naa la ko dénk naa la sama njaboot si barke Seydina Mohamed suñu yaay ji yàlla na yàlla sàmm aar ko si barke Seydina Mohamed loo xam sama sëriñ yow mu ngi nii tey moom il ma jox la kàddu nga ayca ah Ablaye jox ko waa jox ko kàddu gi ndeysaan. asalaamaaleykum jërëjëf maaleykum salaam. maa ngi lay nuyu sëñ bi di la ziar ngi lay nuyu lu bëree di la ziar. la jox sa wàccuwaay. maa ngi leen nuyu yentam tam yéen muley muley yëpp. di nuyu sama yaay jee toog maa ngi lay nuyu lu bare bëri di la ziar. ma lay wax nag nga ñaanal ma lu bari balaa déwén ma avancé buy mën a yóbbu sama yaay man tamit maak incha allah. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. mu lay mu lay maa ngi leen di nuyu na moom maa ngi koy sant di ko gërëm. ndax metti woon na torop metti woon na sama yaay daan ma téye samay mbokk daan ma téye may dugg ci fu nekk ma fay dugg ma xam sax duma comprendre. après day mel ni bu ñoom buñ ma koy wax day mel ni film lañ may nettali. du ma ko gëm Thierno mosuma ko gëm sama àddina du ma fen du question li mu toog moo tax. mosuma ko gëm ci ko gëm. jëkkër xuloo naa seeg moom ba taay su nee day dem si Thierno ma xuloo moom ne yow da ngay caaxaan rek topp caaxaankat yi. du question li mu toog mais lu nekk ci man la waaw lu nekk ci man la dama koy wax maa ngi doog a gëm. ne Thierno Mouleye am na lu nekk ci moom ndax li nekk ci man moom moo ko dindi maa ngi man maa ngi doog maa ngi doog a nekk nit maa ngi doog dajale maa ngi doog a liggéey pour de pour am loo xamante ne maa ngi koy dimbalee sama njaboot dama daan liggéey xaalis bi duma xam fan la nekk daf ma daan yàqal lu bari mais léegi maa di toog naa ba xam ne man léegi ne si nit ñi laa bokk moo tax léegi damay toog ne de maa ngi koy gërëm maa ngi koy gërëm lu bari di jé di jébbalu si moom tamit tanaankaan maa ngi jébbalu si yow macha allah. jërëjëf muy lu am solo di ndax nee na jinne bu nekkee ci yow dina yàqal di tënk bu la jàppee da lay njëkk a ñaaw ñaaw la lay njëkk a def ñaaw da ngay ñaaw waaye bu ko sëriñ bi dindee da ngay rafet. tubaarkàlla kon sëriñ ne moo yor taar bi ah. Ah? moo yor taar bi. loolu kay biti loolu kay loolu kay biti la fanaanoo tax dëgg de. soxna si ku xool bi sëriñ bi di génne jinne bi fii ci ziar. Ah. ci couverture clinique.

yow ah, na xanaa xam nga léeg-léeg nit day jonkan di xaar nga torox ba mu torox <laughs> léegi léegi xam nga xam nga dañ fe jàng juróom-ñaari kaamil. dañ fee jàng juróom-ñaari yoo xam ne après sëriñ bi. dina wax nu nu mu nu mu départagé kaamil yi. dëgg ndax moom en général bu jàngee bu ñu jàngee ay kaamil. dina ci am loo xam ne waajur wa bàyyi Mamadou Alioune Sow moo koy moom am ci boo xam ne réew mi yëpp la koy boole am yeneen yoo xam ne bu nekk daal ak fa mu koy féetale incha moom après dina wax fi mu féetale kaamil yi bu ko defee bu sëñ bi sànnee kàddoom ba pare ñu jàng xat mu bi après sëriñ bi soog ñoo ñaanal léegi léegi léegi xam naa sëriñ bi ñu ñu def waaw waaw waaw kay waaw sëriñ bi sëriñ bi nee na ñu jox sunu wayjur wu tedd wii demoon ci baytilaal xaraam muy ajaratu mariama kamara mu sànni kàddu yi nga xam ne moom la bëgg a sànni yépp ndax wokkal ma wóorul wokkal ma wóorul te am na loo xam ne ajaratu mariama kamara moo ko yëg te li yëg nag moom rekk rek rek rek rek moo ko moo ko mën a wax ndax dañoo wax ne bu jëf yeesee rek cant yees bu jëf yeesee cant yees te allah Cerno Mule daa dëkkee jëf sunu yaay ajaratu Mariama Kamara dëkkee cant ak ñaan kon yaa booy bismillah ñu ngi lay déglu sunu yaay ajaratu Mariama Kamara ne asalaamualeykum maa ngi leen di nuyu yéen ñi fi teew ñëpp ku ne sa tur ak sa sant. nee na mi ngi nuyu doomam ju tedd ju baax ji bu baax a baax. nee na mi ngi lay ñaanal yàlla. fan bu gudd ak wér gi yaram. nee na kontaan na ci yow lool. nee na yaa tax mu dem ajala ji papaam ginnaaw ba mu ko yóbboo ba pare nee na dem na ajal na Baye Mamadou Aline Sow ni mu ko war a ajale bàyyiwul dara yàlla na ko yàlla nangu nee na te aj gi fekk ko fa mu tëdd waaw bu leen bu loolu weesoo mi ngi nuyu mu de mu de yëpp national ak international di nuyu journaliste yi di ma nuyu man mii di nuyu xaaji maxtaar sama doomu ndey di nuyu ajaratu ndey cheikh di nuyu ajaratu xadiba ak ajaratu xadibu nee na di nuyu daal mboole mule mule boo xam ne rek yaa ngi fi nee mi ngi nuyu bàjjanu alxaaji cerno mule bàjjen ñi ngi lay nuyu bu baax bàjjen ñi ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal fan bu gudd ak wér gi yaram yàlla bàyyi la fi ci sunu kanam nga yàgg fi lool di ñu gunge nee na ñu ngi nuyu bàjjeni madame Sow moom itam nee na xaritam yu baax yu tedd yi mi ngi leen di nuyu nee na mi ngi nuyu ajaratu fan ma mbuub mii di nuyu soxna Fari Fay di nuyu Aysatu Fora di nuyu Nene Gàlle Ba di nuyu Soxna Xadi Siise Soxna Kumba Ba ñu ngi koy nuyu di nuyu doomam yu baax yi fi nekk Soxna Binta ak Soxna Suwaadu ajaratu Mariama Kamara ne képp ku fi teew mi lay nuyu sant na leen gërëm na leen kontaan na bu baax nee na gis na ni nga xam ne noon ngeen ko teeroo. gis na itam hadiya bi ngeen ko jox bari na trop. nee na hadiya ji ngeen jël jox ko ko ngir yàlla ak barke doomam ji allah Thierno Moule Sow yàlla na leen ko yàlla fay. yàlla na ngeen yokk ba yëg ko. ci barke Seydouna Muhammad yàlla na leen yàlla bàyyee ak seen sëriñ fa ngeen bëgg a yegg ak moom yàlla yóbbu leen fa. ci barke Seydouna Muhammad sant na leen gërëm na leen mule mule yëpp nee na allah nu Moule saw mii daal moom yàlla rek la koy bàyyee léegi ñaanal na la ba xamatul lu lay ñaanal yàlla mi am fay yàlla na la yàlla fay nee na moom du sonn nee na lim lay ñaanal mooy yàlla na nga fi yàgg te yàlla kàttanal la dooleel la. yan bi la yàlla yan yàlla na yàlla téeñal nga àggale ko ak sa sago. jàppale gi ngay jàppale doomu aadama yi. a ah, tey boo fi nekkul woon du baax de. nee na billaahi wallaahi du baax. nee na mi koy waat ci yàlla ni boo fi nekkul woon du baax jàppale nga doomu aadama yi torop nee na ñi xamul woon affaire jinne yépp yaa tax ñu xam ko ñi seytaane sono leen ñépp te xamuñu ko yaa tax ñu xam ko ba pare bañ ko xamee yaa leen tàqaleeg ñoom sant na la gërëm na la nee na moom daal nee na moom daal yàlla rek lalay lay bàyyeel nee na siggil nga ko sagal nga ko suturaal nga ko jàppale nga ko ajaratu Mariama Kamara ne lii nga ko defal yàlla na nga dund ba Mouhamadou Rahman ak Mouhamadou Rahim di la ko defal nee na ak say sët sëtaat sax di la ko defal di la xëccoo ci barke Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam nee na xolam daal dafa sedd ci Alla Cerno Mule nee na kontaan na bu baax a baax sant na la gërëm na la bu baax di sant sa soxna bu baax madame Sow laa reen ñu ngi koy sant di sant soxna ummi di sant alxaaji Sofi di sant bàjjen ak famille alxaaji Sofi yépp yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla na yàlla yokk seen sutura ci barke Seydina Muhammad nee na ñi fi teew ñëpp sant na leen gërëm na leen kontaan na bu baax ci yéen nee na mu ngi may sant man mii di ma gërëm nee na li ma doon firi nag neex na torop nag kontaan na ci nee na doyalu nu nag waaw nee na Matar mi ngi koy sant tuuti rek Matar maire bi mi ngi lay sant tuuti rek wallaahi wallaahi wallaahi oh! buur sab si sama ruus tubaarkal waaye borom cuuraayu ba kaa jori ak bit fee bee fee du waaw mu lëmbe nee na mi ngi sant sécurité yi sécurité yi waaw sécurité yi soxna si nee ngi leen di ak caméraman yi ak caméraman yi réalisateur bi kaa nee na Aliou mi ko doon yóbbu muy defe sport mi ngi koy sant bu baax. mi ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm. yàlla na yokk ba yëkku. yàlla bàyyi ko ak sëriñ bi ba fi mu bëgg a àgg ak moom. yàlla yóbbu ko foofu ci barke Sayyiduna Muhammad. nee na avant muy dem Màkka chaque jour Aliou moo ko doon yóbbu muy dem sport di doxantu ndax Màkka moom faw nga yóbbaale forme ngay am forme ala Cerno mu ne ah. nee na nee na nee na ala mu ne nee na ko jërëjëf yaayam nee na ko jëf lii mooy radiyallahu anhum wa radu anhum ala Cerno mu ne dafa toog ba yàgg ni jënd naa ay ginaar yu bari ma ne ko waa ala Cerno looy dayee ginaar yi ca fan yee mu ne ma ajaratu Mariama Kamara laa dégg mu naan daa soxla ginaar mu dem xool marché ba la fa des ci ginaar yëpp mu jënd ko ñëw. ndax nee na ndax daa dégg rek ajaratu Mariama Kamara naan man daal damaa soxla ginaar mu romb ko fa dem taal ba. dem ànd ak ñoom mataar mii dem jënd ginaar yu bare baree baree baree baree baree bari daal koy indil jox ko macha allah. semaine semaine ajaratu Mariama Kamara nee na ginaar yi ci la doon xéewlu ba dem Màkka ba ñëwaat fekkaat fi ginaar yi. ba tey mi ci ciy xéewlu. xam nga xam nga loolu. waaw ci moom laa jëm ci bàjjan laa jëm. waaw kon ñu déglu ñu déglu bàjjan bàjjanu sëriñ bi mu sànni ci ay kàddu bàjjan bismillah bàjjan ne soxnaam bii de ajaratu Mariama Kamara. demoon ziyaare ji nabil Moustapha nee na ñaanal ko nee na da ko feebar dafa feebaroon mu ñaanal ko mu wér nee na yàlla xam na ni fan yii yëpp dafa tëddoon tey nag yàlla may ko wér mu mën a agsi nee na ajaratu Mariama Kamara kon sa ñaan moo nangu nee na xam nga lan la bëgg a dëggal nee na man li ma wax naan alxaaji Mamadou Alioune Sow ma nga aljana aj gi ñu defal ko ko ci palaatu wurus mu koy tiitaroo sagam maa nekk fii si àdduna bi mu ñaanal ma wér te yàlla xam na ne sama mag ji ndey bi ma àndal xam nañ ne fan yëpp dama feebar su ma jógee nii dama doon miir nee na sagam moom mii nekk ci àdduna feebaroon feebar ba tëdd magam ji mu àndal nday toog sax daf ko jaaxa seede na ko bu jógoon da doon miir ndegam moom la ajaratu Mariama Kabara ñëw ñaanal ko mu ni ñokket ci saasi ba mën a agsi fii nee na kon man mii li ma wax ni alxaaji ma Mamadou Alioune saw ma nga aljana yore palaatu wurus wa ñu tegal ko ci aj gi mu koy tiitaroo dëgg la nee na ni ma waxee ni sayyiduna muhammad ci jumbaxu way juróom wu jigéen la jaar bésu dimanche jëm altine nee na allah ji Cerno Mule Saw mii kilifa gii toog way juróom wu jigéen bi ma ko ëmbee. bëtam yi dafa neewi. nee na bëti ajaratu Mariama Kamara yi dafa neewi. nee na ay weer a ngi nii ajaratu Mariama Kamara gisul laaj leen ko ko mi ngi nii. mënula gis ba ñëpp jaaxle lan la. nee na mënula gis ba ñëpp jaaxle ajaratu Mariama Kamara lu ko dal ndekete yoo sang bu tedd bi la. nee na bi sang bu tedd bi ganee àdduna nee na bët yi neewi neewi bi dafa rees nee na bët yi daal di leer nee na benn garab faju ko nee na kilifa gii toog di alxaaji Thierno Moule Sow mii nee na man mii mani Sayyiduna Muhammad bi mu ganee àdduna dafa tudd yàlla am lu mu àndal kon cer Alaaji Cerno Moule saw mii dafa am lu mu àndal nee na moom mii mu jël ko uuf ko moo ko jël wat ko nee na taawam ba ci caat Alaaji Mamadou Alioune Sow musul nangu kenn wat leen ku moom nee na kon daal ñun ñuy wax lu ñu wax ci allah Thierno Moule Sow tuuti na. nee na moom allah Thierno Moule Sow lan la koy defal. nee na yaayam daf ne ko kii ay gestionnaire la lay defal mu defal ko ko xoola bii mu sol ne mu rafete nee na yamul ci bii de ay la ay ay ay nee na gis nga lii mu ko jox wallaahi la azim nee na bii paase indaale na ko bii paase da koo indaale wan ko ñépp nee na dugg léet nee na bi ñu tasee xale bu jigéen bii raam fii tey dafa nite di woon nee na yaa ngi fi woon nee na muy wiñaaru di baddaaxu comme jaan nee na tey dafa leer naññ nit a takk ay weeram nee na waaye maa kontaan ci sama doom ji ala Thierno Moule Sow nee na dundal loo dund doyul nee na ceebam manqué wul nee Jibi Camara usmaan nee na Jibi Camara usmaan day gaare oto jox leen ceeb jox leen xaalis ni leen yóbbul leen ko sama bàjjan mais ala ajaratu Mariama Kamara nee na aja lii lépp yow la nee na lépp yow la de boo doxoon ci diggante bi nag du yegsi nee na nee na kii lu mu tagg lu mu tagg xam baay Baye Mamadou Alioune saw nee na li mu wax baay Baye Mamadou Alioune saw yëpp dëgg la nee na sosu ko de nee na dafa jëndal soxna si oto wutal ko chauffeur teg ko cinquième étage yéen a ngay seede nee na kon boo leen waxee ni ajaratu Mariama Kamara yàkkal na leen ay ginaar dëgg la parce que borom këram daf koo ñeewante yërëm ko yiir ko bëgg ay doomam yar ay doomam ci diine doomam yee màgg ñépp am jom kenn ñàkkul jom kenn ñàkkul fulla waaye alxaaji Thierno Moule Sow nag moom daf cee rawati moom dafa xër nee na alaaji Thierno Moule Sow dafa xër ci ñoom ay bàjjanam mu nee na moo tax bàjjan mi itam xër ci moom rekk nee na ah looloo tax ma ni ko ah bu lingom bi dugg nag. bu bu yaay laalee na na jël nee na dala doon tooñ nag. nee na moo tax moom itam muy tooñanteeg doomam nag ni ko lingom bi du dugg te laalu ma ko waaw oro yaa nee na mu indi magam ji ndey toog mu ni ko ndey toog waxal ma lépp mu wax lu rafet li mu xam lépp. waaye daal li ma waxoon sànq wokkal ma ci boppam moo doyul yow mi xam fii xasan rek yaa ko mën a wokk faw mu dollu ci nee na looloo tax mu mu faf wook rek nee na fi may wax ni damaa toog nee na su daan wax day taxaw day nee na da daan da daan accompagner doomam ajaratu Mariama Kamara day ne ci digg bi ma nekk ci côté bi ñu seq sëriñ bi waaye waaye tey maa ngi damaa xawoon a jagadi waaye ma nga sant yàlla ndax ñaan gi nee na ñaan gi dal na ko de ajaratu Mariama Kamara waaye damay bañ a yëngal yaram wi lu bëri nag waaw mu mu bañ mu yëngatuwaat nee na waaw koy lool rek la loolu daal moo tax mu ñëw rek toog nii waaye sa aj gii yàlla bu mu nekk aj gu mujj nee na dig nga ma aj nee na danga koy am parce que yàlla nga ñaan te yàlla li nga ko ñaan am na ko ñaan nga yére yii ak Ceerno defal ko ko mu am conférence bu mag nee na keroog moom la sol nga jóge siyaare ji Seyduna Muhammadu ya rasulallah nee na mu teeroo la ko ajaratu Mariama Kamara nee na yaa ngi moom dingeen ngeen ànd màkka bu ko defee man mii ma ànd ak ñoom waaw jërëjëf bàjjen jërëjëf ah, jërëjëf bàjjen kàddu yi rafet na kon bii soxna Ayda Dia soxna ay Dia ah waaw kay bii soxna Aida Dia moo ko moom soxna moom moom ànd ak zam-zam ak kurus zam-zam a ngi nii lii de xanaa zam-zam das tax la de zam-zam yi daa mel nii de nouveau modèle bi la madaam kaay kurus du doole kurus bi defar rek kurus bi lu ci waaye ñaan bu nangu nee na macha allahu jàllaabe bu rafet la Thank you. ko defee lii jàllaade bu rafet la madaar ànd ak zëm-zëm ak kurus kurus mooy sëriñ ja ndeysaan soxna Ayda Dia soxna Ayda bismillah bismillah jógoon taxaw kay jël dañ ca jëlal teraanga ji jërëjëf teraanga dañ koy fësal waaw macha allah rafet na waaw tàccu leen loolu waaye jërëjëf waaye jërëjëf euh, rafet na ndeysaan nee na moom it joxe na addiya vingt mille francs ajaratu Mariama Kamara tubaarkàlla di bàjjenu madame Sow laa ren di soxna Ayda Dia bii nag alaaj Cerno Mulay Sow king of the king moo ko moom borom faajuru naajuru ajjuma bente le binte ko ni jamaane ko ni damanka buuri jinne yi papa yi loolu la yàlla dogal waaw waaw ah jëlal ma lii en direct may ko loolu waaw sëñ bi def noonu jot na dugg moom xam nga jàllaabe yëfam la waaw kii nag ki ko moom mooy la xaalis dana ah tubaarkalla sama yaram a tàng waaw ñaari jàllaabe la nee na ñaari jàllaabe la ak manto ak manto nag tubaarkalla nee na benn ba moom nee na daloo na ko tàccu leen loolu kookoy sëriñ ndax daa rafet lool te mu sopp lool yonent bi te ajaratu Mariama Kamara jële ko fa cofeelam ci yonent bi nag nee na moo ko maytul muy xool jàllaabi bi te tubaarkàlla dajjiwu ko sol ko nag xam naa ne manto may cee topp looloo tax mu dajji benn ba beneen baax ngi nii nag tubaarkàlla ànd ak manto bi waaye ànd ak kurus gi day saan waaye allahu muhammad tàccu leen yëfam moo ko jox ànd ak sëm-sëm nag day saan maa u sëm-sëm lima shuriba lahu la ilaha illallah waaye tàccu leen loolu ñu ne nag soxna si nag moo koy jox ah tubaarkàlla lii nag dafa am solo ndeysaan waaye tàccu leen sëriñ bi waaye ndeysaan ah xol sedd na guy waay ma ko xol sedd na guy waay tubaarkàlla nee na bii soxna Fari Fay la soxna Fari Fay foo féete jógal taxaw ana nga ci mbooloo mi soxna Fari Fay ngi nii di àndi démbam nga ne kaay taxaw nii Mariama fu mu jëm yóbbu ñu maag Fatou moom bu ma lu mu am jox ñu jox dëgg loolu ñëw suñu kër koo ko ñaan ko defal ba waaye waay waaye lii moom si jaadal la yàlla na yàlla fa jàpp doom ju baax ak ku sa doom baax li ñaan li ñaan ku sa doom baax loo ut ci doomi jaabur ba cay xeer waaye mooy dëgg ñun suñu doom dafa baax sa doom kenn parce que yeneen bi macha allah laaw macha allah soxna Fari Fay nee na moo moom si jaada bu rafet bi def kaaba gi ndey sax waaye ak kurus waaye nag ànd ak zam-zam nag sax tubaarkàlla ah boo ko gisee sànq koy teg waaye si jaada na ndey sax ah xool sedd na buy waaye waaw waaw ajaratu nday Cheikh nee na kii nag

ma ne ko bàjjante di bàyyi. ak zam-zamam. lu xew lu ne bàjjante xaw. waaw bàjjante ñu. ajaan day mati ajaan day mati ajaan day mati ne nga. bàjjante ne nga ñëw. ajaan day nga ñëw ah waaw. nee na magam moom la ñu ko tubaab kàlla. nee na moom it bii bii kol gi dafa ànd ak jàllaabe. nee na kol gi dafa ànd ak jàllaabe. nee na jàllaabe bi incha allah suba ci lënd bi dinañ ci jot. nee suba ci lënd bi incha allah dinañ ci jot. nee dinañ ko ko jox bu soobee yàlla. waaw kay. ma ngoog kontaan ko. amiin waay kurus kurus. amiin yaa rabbal alamin. jàllaabe bi incha bu subaa jàmm dina ñëw. jàllaabe bi dina ñëw tubaarkalla. jërëjëf. waaw waaw amiin. jëwlin ajaratu xadim bu. ah tàccu leen tàccu leen tàccu leen na foora foora foora foora foora foora. seen jëf ji rëy na tubaarkàlla waaye kéer ba jox moo ko jar a jox ba El Hadj Thierno Moule Sow tubaarkàlla waaye nag di gërëm national bi ndax lii ngeen def moom ngeen wax def ndeysaan ndax taalibe day jëfal sëriñam waaye ajar ci ko bu baax a baax a baax sëriñ bi di wax cofeelam ak yëg-yëgam ak cëram ci sëriñ ak bëgg bu ko bëgg waaye nag ak seen xam doomu ndeyam ajaratu Xadiba tubaarkàlla di baax moom it bëgg sëriñ bi lool tubaarkàlla di jëwriñ moom tamit ci kër gi waaye ñoom ñaar ñii la tax sëriñ bi ne leen yéen ay seex loolu sëriñ bi rek ko ko xam kon sëriñ bee xam boole ngeen may loxo jëwriñ yi bu baax a baax a baax waaye di nuyu mule mule yëpp ndax bu ñu waxee jëwriñ yi rek wax nañ mule mule yëpp defe naa ne ñëpp a fi toog ku lim bi da ngay juum wala doo waaye sëriñ bi dama ne ku ci ne rek waaw ma ne ni ngeen def rek noonu ngeen war a def ndax sëriñ bi nee naa leen propagandul ay taalibe ku ci nekk daa am fu mu jàq yow ba nga yëg ko ci sa biir xol xam ne fii moo doon xasan sëriñ bi wokk na waaw nga da koo jëmbal sa bopp waaye kon bu ngeen defee lii barkàlla da ngeen ko war a def waaye da ngeen koo def fi jar def ndax sëriñ bu la mënut a fajal bopp yu métti demal ba ko boo amee fulla lu leer laa lay wax ku fi topp koo xam ne mënu laa fajal bopp yu métti yaa ko yëgaa alaaj ceeb na mu lay soog ay cuuraayam la yor ay vite fait bien fi am la yor ah ay ñaanu duwaa jaxbeem la yor ay kul fa yàqoonoom la yor te fu mu ko décroché tubaab kàlla suñu borom ne fa yàqoon fa inna maa amruhu izaa araada an yàqoola loxo ca nooma lay sow kun fa yàkkoon loolu nag yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo ko ci moom ndax defe naa ne am na ñoo xam ne fii bëggoon na na moom bu kol gii nee na kol gii ànd ak cuuraay goudron bi ànd ak cuuraay goudron. ak kurus. nee na ànd ak kurus. ak zëmzëm. ak jàllaabe bi. nee na jàllaabe bi. suba ak jàmm lay ñëw. allah. bu ñëwee incha allah. nee na jot. nee na di nga ci jot. chéri rahim kooku nag mooy. waaye tax ci leen ko waxee. waaw xadima. tax leen nag. waaw ñu yëngale tuuti rek ndeysaan waaw ajaratu xarit bu bëgg nga xam ne mooy kurus yi nga xam ne googu kurus de ajaratu Mariam Kamara def ma nii teel maa ngi ñëw waaye nag maa ngi ñëw jóor ju mag di ajaratu xarit ba waaw tubaarkàlla nga fu alaaj cee moo ko lay sow joxoñ fa lay xool nee na man mosuma jëmulu ci kenn léegi ajaratu xarit ba waaw moom itam. moom moom col gu verte gii. waaw couleur l'islam. ak cuuraay bi. ak cuuraay bi. cuuraayu godron. cuuraayu godron. ak euh, zam-zam. nee na ak zam-zam. ak kurus. nee ak kurus aussi. ak jàllaabe. ak jàllaabe. incha allah. bu subaa bu jot ci jàllaabe. waaw maman Khaliba. di ku bëgg bi. waaw. di taalibe waaye di jëwriñ national lan moom ki nga xam ne mooy def ci boobu waaye tubaarkàlla moom mii day jëfkat bu mag ndax li tax ma di ko wax sëriñ bi dafa nekkul waaye kat kat keroog bi nga xamee ne Cheikh taalibe taalibe boobu nekk ci Suisse woy juróom euh, nelaw la sëriñ bi dama maxtaar bi yoboo nga wàcc ànd ak gaañi ngeen dem fële nga xam ne tubaarkàlla mooy nar sëriñ bi dugal ñu plein tubaarkàlla waaye bi ñuy daw ba essence bi wàññeeku dafa génnee tubaarkàlla moom mi ak Issa ak kële tubaarkàlla ñu si jaar station bi jënd troisième fois bi quatre carburant am la génnee joxe ko tubaarkàlla ñu jënd carburant muy lu am solo lu am importance loo xamante ne mënuma ko woon a bañ a ñàkk yegg sëriñ bi te defe naa ne fii ma ko waxee bay cere fa laa la ju muy lu am solo ndax taalibe loolu lay dégg taalibe buy yokk ci sa kanamu sëriñ doo avancé doo puus doo paas man maa la ko wax tubaarkàlla nii ngeen jàppee sëriñ bi noonu dong la ni ngeen saat ni ngeen sooboo noonu ngeen di tooyee waaye defe naa nag ah ajaratu maman Xadi ba léegi tubaarkàlla kurus baa ngi noonu ak cuuraay bi cuuraay goudron ak kool ak kurus ak kool ak kool. waaye may def loxo bu baax a baax a baax. Matar ak jàllaabe. ak jàllaabe. tubaarkàlla kontaan nañu. waaw bagage yaa ngi noonu muy joxe di ci ñaar waaw ku yokkul na ngaa wàññi. waaye defe naa ne tamit. laaj ci baax bi gën naa maa la wax li ah maman Khady Mbow dafa waaw moom moom moom lu ne moom moom histoire dafa bëri. mooy mooy madame Solal. ay wéegam kenn mënu Solal madame Solal. mooy mooy madame Solal. ma ne ko mooy madame Solal de. day sañ rek. te kaama xawal la de pareegul de. moom moom dafa bëri histoire. waaw ndeysaan. sama léegi léegi Matar léegi Matar. waaw soxna Oumy Dia. Ah, waaw soxna ummi waaw soxna ummi nag tubaarkàlla bu ko waxee ndeysaan ah tubaarkàlla xel day dem ci madame Sow laa dem tubaarkàlla mm-hmm. waaye xel day dem ci suuf yi ndeysaan mm-hmm. waaye xel day dem ci baatam ndeysaan mm-hmm. waaye xel day dem nag ci raxmaana nga doxoon nañ kooku nag ndeysaan mooy madame Sow laa dem ah am na kurus jéeg bi nga xam ne tubaarkàlla mooy jóg ci man di yàq ci góor yi may leen ma loxo madame Sow laa dem tubaarkàlla mooy ëmb waaw léegi soxna kooku nag tubaarkàlla mooy toppatoo seen sëriñ ba namu dara ndax gis ngeen sëriñ bi fi muy génn ci santé tubaarkàlla waaye nag mooy kii ñu doon sëriñ waaye mooy ki nga xam ne tubaarkàlla mooy borom dibi waaye mooy ki nga xam ne mooy borom yàq tojee sënd bër sombaat kooku ba madame Sow laa ren xam ne mooy ba mu neex daal di taajal sëriñ bi kooku mooy madame Sow laa ren tubaarkàlla jërëjëf léegi soxna ummi jàllaabeem jàllaabeem ak zamzam bi waaw jox nañ ko bàjjan bàjjanu bàjjanu madame Sow yi nga xam ne moo ànd ak jàllaabe beeg zëm bi nag jox nañ ko soxna ummi yooyu moom soxna ummi jël na ko jàllaabe beeg zëm bi moo fi des ñëw jox la ko nga nangul ko incha allah jërëjëf loolu ay xol seet soxna Aysatu Fora soxna ndax nag tubaarkàlla teraanga dañ koy fësal ndax ñu mënta def teraanga di def teraanga waaye ala cër mu lay soog ala ndaw nee naa la tubaarkàlla teraanga dañ koy fësal ngir ñu mënta def teraanga tubaarkàlla di def teraanga jërëjëf. macha allah. ndeysaan. ma ne ko lu yàgg la maa ñaanal yàlla di sa njaboot bi. ñoo àndoon dem Màkka. demaat na ren yàlla nañu àndaat déwén ci barke Seydina Muhammad te ñi fi toog ñëpp yàlla nañu dem Màkka ci barke Fatia Salatou Fatia maa ngi ñaanal ñëpp Cheikh Amadou yàlla nga yokk ba yokk yàlla yokk yàlla yokk yokk maa ngi waaw ndeysaan waa jàmm gën a ngi noonu ndeysaan ba nga xam ne fa laa juddoo ragal du fa juddoo yambar du fa juddoo waa la ko wax waaw bii soxna Fatma Mbuub moo ko moom soxna Fatma Mbuub ah soxna Fatma Mbuub ah. ah, soxna Fatma Mbuub nee na sànq ba léegi yaa ngi koy jox ah, na nag yaa hmm. allahu akbar allahu akbar la maa bëgg na yaay mënoon naa bëgg nga bañ waaye tubaarkalla la nga baax tubaarkalla baax yow kenn yow dama ne nag alaaji Thierno dama koy ñaanal yàlla fan yu gudd gën di yaram yal la sa yàlla gën a jàppale loo yàlla nga mën déwén lu ko yow kenn yow ban déwén bi kenn yow fas bu jox nga ban est ce que Touba Mbacke def la ko ci joxe maa ngi déglu ci wax bi nag. waaw jërëjëf. jërëjëf. ñu lay jaajëfal bu baax a baax. di wax ne xol sedd na buy. jërëjëf waaw. Maxtaar. waaw. bi soxna Nene Galle moo ko moom. soxna Nene Galle. saa yeetoo yeetoo. ah fii tey moom dina ah. si jaada kii si la de soxna Mbène rek àll ah si jaada yi nii de waaw ànd zam-zam nag ak li nga xam ne mooy guus waaw tubaarkàlla ah jërëjëf. kontaan naa soxna nee na daal merci beaucoup jërëjëf waay soxna Binta Diallo. Binta Diallo Alkay barkalla waaw muy lu am solo ndax lu yàgg dëkk la ma dimbali la yaa ngi mag moo tamit doo ma ko ah waaw kooku si daana la moom tamit waaye ànd naag li nga xam ne mooy zam-zam waaye tubaarkàlla ànd na ak li xam ne muy course ana maa ngi nuyu ñëpp kontaan si ñëpp wax dëgg yàlla sama yaay moom kontaan naa ci moom awma yaay mais jooyu yaay ndax moom mu ngi taxaw xool ci li ñu nekk ba sama yaay dëddoo ba tey mu ngi taxaw di ñu woo di ñu xool ci lu ñu nekk moog sama yaay ñoo doon ànd nekk xaritu benn bakken wax dëgg sa yaay ànd nañ ba ni ko yàlla jëlee kontaan naa ci moom di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram sama mag bi nag yàqu ci daara dara Thierno wax dëgg si yàlla boobu ba léegi moom it mu ngi taxaw di xool di ñu lijjanti lu ne lu am ci kër gi dëj bu ne mu ngi taxaw di wàccee lu ne taxawuñu ci dëj vraiment awma sax lu ma mën a wax ndax kontaan sama xol jeex ma xalaat lu bëri sama xol tooy daal mais nag kontaan naa kontaan mbette daal vraiment jërëjëf merci. mu àndal sagal na ko. jërëjëf allah. lii. boobu. Alxaaji Sofi Dia moo ko moom. Alxaaji Sofi eh, ah, waaye nag bàjjan laa koy jox mu nangu. waaye tubaarkàlla. ah ñu ngi koy ñaanal moom bu baax a baax a baax a baax waaw waaw ak am diine waaye ak am lislaam yar ko ci njabootam tubaarkàlla foofu mooy suufi tam ñu koy ñaanal baax a baax baax baax waaw liggéey yëf yi daa mujj nooy de wala maa ngi yuux rek ne yëf yi booroon ah d'accord ndax da ngaa baax daanaka champion. ah wax dëgg yàlla mu ne mu tey wàcce ngeen fi ba xam naa ne seen ceeb bi neex na xeetu neex boo xam man jalaa gaañu ba tey barki yonent bi ginaar yi nii ngeen ko jaayee doole. ci mu ne mu ne ginaar yi. tubaar waaw xoola ma Aliou caméraman soxna Ngumba Ba soxna Ngumba Ba ak Khady Cissé ah waaw yegg si leen nee na am nañ am nañ kurus ak zam-zam bi mooy nouveau model bi nag tubaarkàlla dëgg la tey ñoo moom la kii ba ñu nekkee xale di ànd boobu mënaguñu saa dox boobu ba léegi ñooy ànd fàttewuñu benn yoon mënoon na tey mu neex mu bàyyi ñu waaye mosuñoo bàyyi mu ngi ñuy o téléphone mu ñuy seet mu ñuy jaari si mu ngi ñuy xool ku baax a ngi nii waaw mën la yëg bi yëg doy na yëg bi rek doy na yow maire jërëjëf waay sa kaala gi yal na nga ko ràppal ak jàmm ak salaam kenn kontaan nañu jërë ngeen jëf mooy bagage yi nga xam ne moo jot a agsi bu ñuy def nganale gi nag li jot a agsi faaw ñu joxe ko waaw ndax ndax daje bu mel nii daje bu mel nii yombul kon kenn ku nekk li jot a agsi rek moom lañ lay jox incha allah li ci des bu agsee incha allah ñu fexe nga jot ci incha allah kol yaa ngi ñëw jàllaabe yeeg lépp a ngi ñëw incha allah subaak jàmm lépp dina ñëw waaw waaw ndeysaan Madame waaw kay kay ah kii maa koy nangul afisul ah, quran bi waaye ki nga xam ne tubaarkàlla mooy oustaz nag dégginu luxa arab bi jaaxal na ma waaye déggu nahu bi jaaxal na ma waaye dégg tasawuf bi jaaxal na ma waaye nag dégg siira bi jaaxal na ma oustaz foo jàngee Euh, man daal fi mu toll nii Maxtaar. waaw. Eh. nii la may def. bagage yi yonent bi laa yor. taxit nag nga mën a làngoo kii xam ne nag ah. mooy Ajaratu Mariama Kamara waaye di jàmbaari Sidina Muhammad Kamara jërëjëf xam nga boo demee ba Màkka ba Madinatul Munawara sa xel dem ci ay sa ay employé employé ala Thierno Moule saw dëgg-dëgg ku baax nga te mën a defar te mën a fédéré maa soxna Ndeye Top. soxna Ndeye Top Ndeye Top. soxna Ndeye Top. Ndeye Top bu Tëngéej. kolam suba bu Tëngéej. soxna Ndeye Top dina jot ci kol gi. ah bu soobee yàlla di nga jot ah. waaw sëriñ bi nee na léegi nag mule mule yi. dëgg-dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war naa ñoo gisee te dëgg-dëgg war naa ñoo gisee kone doomu ndey am nañ seen yóbbante nanu gisee Cheikh la xalif général Thierno Moule Sow Soundiata Keita. What did jaale jaale mu metti metti nga bugg a wér waaw maa bugg a wér man mii maa bugg a wér te loolu suwaado suwaado kurus yi mataar kurus yi pour mule mule yu jigéen yi la kurus yi nag boo ak yeneen kurus yi sëriñ bi mi ngi koy décoder nii gis ngeen mu ciy ñaan nii day décoder kurus yi loo ñaan mu nangu insha allah waaw na ko jox na ko nag li nga xam ne mooy kurus yi tubaarkàlla ne ko yow sànni ci sa asaka yéene waaw waaw ndeysaan yal na kaala gi ràpp ak jàmm waawaaw waaw waaw mule mule yi seen kurus yaa ngi noonu ndeysaan nee na kenn ku nekk mën naa jóg daal taxaw rek ñëw jël benn tubaar kàlla jàkkaarloo ki nga xam ne mooy ajaratu xadim boobu waaw ñëw leen par benn benn rek waaw arrièreal yow ku jël rek na nga wiiri barkalla waaw ajaratu laaj naa la nabi ajaratu laaj naa laaj naa la nabi ajaratu laaj naa laaj naa la nabi ay bintu rasul ma yaa rasulu nabi ndeysaan dëgg maa bëgg nabi ajaratu yaa bëgg nabi yaa bëgg na bee Thierno Moule yaa bëgg na bee. yaa bëgg na bee ay Bintu Rasul. ndeysaan dëgg la. mënu maa wax Thierno. ndeysaan jërëjëf bu ma ñëwee fii damay damay ëppal. ndeysaan dëgg la. man du ma wax du ma sigg du ma xool nit mais ma eggee fii damay rakkaaju. dëgg la. damay rakkaaj man du ma woy du ma fecc mais su ma ñëwee fii damay woy damay fecc maa ngi leen di gërëm ziar maa ngi lay ziar bu baax ajaratu yàlla dimbali tijji sa xol tijji say bët li arabi li wax tamsir basirati dalu la muy gumba xol oustaz am na ñoo xam ne ñu ngi ne xul waaye gisuñu loolu nag dafa am moom la yi di wax tamsir basirati mooy ñi nga xamante ne tubaar kàll seen bët yaa ngi xool waaye seen xol yi mooy nelaw waaye ku yàlla tijji sa xol ci àllaa Ceerno mu lay sow say bët lay gis kàlla mooy tax boo ko gisee tubaar tubaarkàlla dootoo am sago ci moom ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek lay saf kàlla moo tax boo ko jegee kàlla ak cent dalay ñeel ba sax ñu bari dañuy defe ne solo ngeen gis noonu mule mule yi jóg ku ne di jël sa kurus saan macha allah muy lu yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mooy dogal lu ko neex ci jaamam waaye nii mu mel tubaarkàlla yéem na àdduna yëpp ndax tamit loolu mbiru sunu borom la ndax defe naa ne taalibe yi nga xam ne yàlla boole na koog ñoom ku ci nekk am na fu mu jaar ak yow foo xam ne illaa yow mi diin mënatoo koo fàtte ba mu gënal la lépp ndaxte ndeysaan muy nekk loo xamante ne ah bu jigéen ñi jeexee yu góor waaw nee na bu jigéen ñi jeexee jox ñi waaw nga xam ne ku ci nekk sëriñ bi fekk na la foo xam ne bi mu la fa fekk metti na lool kenn fekku la sëriñ bi kese ñii bi ñu ñëwee bi ñu tàmbalee tubaarkàlla ñëw ci moom amuñu sax luñ ko faye waaye sëriñ bi dimbali leen fii sàmbali laa defe naa ne def na ko defati ko defati ko ba tey jii kon alaa Cerno mu lay sow tubaarkàlla yàlla na sa jàmm yàgg waaye ajaratu Mariama Kawa yàlla na kaala gi ràpp ak jàmm bëgg nga kullu ku bëgg sëriñ bi waaye bëgg nga kullu kuy topp sëriñ bi waaye sëriñ bi kenn du moom ndaxte nag subhaanahu wa moo ko def nii mu mel defe naa ne nag tubaarkàlla national bi seen addi ji tubaarkàlla waaye international bi yéen tamit tubaarkàlla waaye fi ngeen ko def foofu ngeen ko war a def ndax sëriñ boo xam ne boo jaaxlee jàq jaaxle boo ko woowee mu wuyu la kooku loo ko defal nag ko xeeb waaye sëriñ bi nag tubaarkàlla moom ku xam ne ne ah, namul dara bi lu mu namm toggantu ko wax sëriñ bi lu mu namm suppu kànja ko wala mu yaasa ko barke alxuraanu karim sëriñ bi namul dara namul oto namul kër namul xaalis nee woon ne waaw tubaarkàlla kon ni ma ko waxee rek sëriñ bi nee na li ko sunu borom defal nee na moo gën a foor xaalis moo gën a foor wulus moo gën a foor ngalam waaye moo gën a foor jamaa ñu ne ko sëriñ bi loolu lu mu doon mu ne xam-xam tënk na lépp xam-xam mooy indi xaalis xam-xam mooy indi lépp loo xamante ne rek Richard la waaye nag defe naa ne ah algaasi ma ngi ne toog bokkoon ci ñi nga xamante ne tubaar tubaarkàll ñoo indi alxuraan karim ji a yaa ngi foofu jàng kaamil bi nga xam ne moom it tubaarkàll di wëllëre sëriñ bi di xaritam xam ne ñoo ànd ba nuy tout tànk ci samay tubaar tubaarkàll a ah xam nga waxin moom dëggit la laaj moo tax leg léeg yenn yi duma ci yegg ndax sunu borom moom lu ko neex lay dawal waaw waaye mook algaasim ah loolu lu yàgg la waaye nag gaa dégg naa bu sëriñ bi daan jëngu dañuy daw de <laughs> waaw waaw cey Cerno so mu mën ci jinne yi tubaarkàlla ku feebar mu faj naa ne nit ñëwee na fi nu sëriñ bi defe naa ne dex sax dekkal na fi nit ñëwee ma ne ko mu xaar barkal xol am karim waaye DJ boo ma dimbali woon ci micro bi tuuti dina neex de wala li may wax yéen koy dégg ah waaw damaa bëgg muy gën a fort rek waaw kay jaajëf DJ waaw foofu baax na muy lu am solo ñuy gën a ñaan rek sëriñ bi yàgg fi lool ak njaboot ak njaboot muy mule mule yu jigéen yi góor ñi mule mule yu góor ñi ñëw leen jël li nga xamante ne mooy sëri ca ajaratu Mariama Kamara min Makka min Medina waaye min Musdalifa nag saan tubaarkàlla waaye kii nga xam ne mooy El lay Thierno Moule Sow tubaarkàlla borom kun fa yokkoon borom duwaa jaabi buuru samsu samaroosi mule mule yaa ngi noonu nag wàcc leen tubaarkàlla ci suuf tubaarkàlla ñëw jël li nga xamante ne ah l'international a ngi noonu nag Moussa tubaarkàlla waaye international Mouhamad Youssoufa mule ngi noonu ndeysaan waaye nag ab Ablaye Diaw a ngi noonu ndeysaan waaye mule mule yaa ngi noonu ndeysaan ah Le basketteur des Moulé Moulé il est là ils vivent en Espagne defe naa ne mi ngi nii nag jàkkaarloog la xalif général mi nga xam ne tubaarkàlla match boo gagné tubaarkàlla ah alaaj Thierno Moulé Sow tubaarkàlla mooy ki téye kurus gi nag di def ay kun fa yakkoon ndeysaan waaye nag ah laaj jawa ngi noonu nag ah waaw waaw waaw tubaarkàlla laaj jawa ngi noonu macha allah. ajaratu xadim boobu. waaw waaw. ah tubaarkàlla. ndeysaan. amiin yaa rabbal alamin. sëriñ bi naan na ci kurus yi. ah Aïcha waxal lu la saf. ah. ndeysaan. ndeysaan. dëgg la. jërëjëf macha waaw gàtt na waaye na solo. l'essentiel nga wax. ku ne fi nga koy yëgee rek comme ni ko oustaz waxee xaw ma noo ko waxee ti sax oustaz moom lu ne lay wax waaw waaw tubaarkàlla muy la am solo ah ah puus leen ah oustaz bu la wóoluwuma la wóoluwuma la wóoluwuma la wóoluwuma la ci samay bagage bàyyil samay bagage ah yee bi bi bi bi c'est le communicateur ah borom faajuru naajuru ajjuma beddeñ binte yaana kori a ah, déggal sama yaay ju baax ji jaamaani kori tawanka jël nga ligue nationale bi waaye nag jël première division ak deuxième division bàyyi rahmaan ak rahim tubaar kàlla ku la diir mbagg xamul barki yonent yàlla muhammad jàmbaari lislaam jaa ngi nii waaye jàmbaari Seydina Mohamed jaa ngi nii waaye jàmbaari fàkk tëdd jaa ngi nii tubaarkal waaye borom social a ngi nii waaye borom weeru koor a ngi nii waaye borom 116 millions yaa ngi nii tubaarkal kenn doo laaj Thierno Moule Sow ah Seydina Ali na ngoog eh, ma sécurité ah Seydina Ali tubaarkal nga xam ne tubaarkal kii moo doon yóbbu soxna si tubaarkal muy def sport kii mooy Sina Aline tubaarkàlla am yar lool nag daanaka buy wax sax waaye dijjee dimbali ma sama baat day métti muy waaw waaw. ndeysaan waaw waaw waaye oustaz lii lan la ah Baye Cheikh a ngi noonu ndeysaan defe naa ne Jóob ngi fi waaye defe naa ne Chef Konaté moo ngi fi waaye defe naa ne Ablaye ngi fi tubaar tubaarkàlla di sécurité bi ndeysaan waaw waaw DJ dimbali ma rek laalal ma micro bi tuuti rek yéen <laughs> ak Diop chef de sécurité bi ak Boubacar ndeysaan ah Boubacar le Boubacar il devenir de sinapeur tàccul leen ma Boubacar waaye mu le mu lay waaye tàccul leen ma Boubacar fu ngeen ne ah yéen a ngi génn gaam de Ramatoulaye Dieye foo ne ma ne ngeen ma Boubacar waaw waaw ak Diop champion Konaté chef de sécurité bi ak lieutenant joob ak adjoint tubaarkàlla defe naa ne Aline mën nga leen a ndax sotti ci ak def ci waaw waaw konaate ak jóob tubaarkàlla may mu mbuus waaw mbuus amul foofu waaw konaate ak jóob waaw waaw waaw tubaarkàlla nee boobu kara ak alseeni ak sina alin cameraman a ah, alin jox nañ ko ba pare am na ci allahu muhammad bi nandite la booy bii jinne cameraman la waaw te dëgg-dëgg war ñoo gisee kone Sénégal war ñoo gisee te dëgg-dëgg war ñoo gisee kone Sénégal war ñoo gisee am nañ seen yóbbante nanu gisee chez le xalif général Thierno Moule Sow Soundiata Keita roi des Djinné aye sama tànk métti des tan yi métti ak wër bi yaram. dëgg la. barke Seydina Mohamed. jërëjëf. waaw. kontaan nañ ci yéen li ngeen fi tëgg cuula. bilaay. ñoo ñoo kontaan si yow. ndeysaan. yow tamit nag. li nga am kàkkaat. ndeysaan. barke maam Serapha. jërëjëf. ayca bisimilah sant rek sant rek waaw zam-zam ba nii la na ci nekk te lépp lu mu nekk am benn waaw te waaw ndax tey sëñ bi mi ba ñuy woote fi la nekkoon am benn Cambérène doomu ndey am nañ seen yóbbante nanu gisee Cheikh Khalif général Thierno Moule so Sunjata Keita roi des Djilé aye sama tànk métti des tan yi xoolal xoolal lii ndax danga jaale jaale métti métti nga bugg a wér waaw maa bugg a wér man mii maa bugg a wér danga jaale jaale mu métti métti nga bugg a wér waaw maa bugg a man mii maa bugg a wér kon topp ma waaxul ñu ngi jégalu si kàddu yi ñu yëkkat si kanam ndaxte ci la kilifa la ndax sëñ bi li tax ñu yëpp teewaay ci mataar bi dañ doon jàng ci réew ak Kambouren mu ma sëñ bi kat waajuram daa jóge màkk te bu jóge bu lay dox sax ñu bëgg lépp loo xew ne si barke ko dinañ ñëw teew ndax jàpp nañ ngir Seydina Mouhamed nga xam yonent bi rek la ñuy yëngu sëñ te bu nag ñu bu baax a baax ñaanal ñu yokkute ak tawfeex bu defee mën ko defee ñu mataal gi daan ñëwoo di sëñ bi kii te yow loo xew la rek génne lañ def

léegi dañuy ànd ñii bu ñu wàccee am na ay si góor si ne. xaal boobu tam ñu ciy jënd lu baax. waaw waaw bu ko defee